muy am solo surtout ci waxtu wi nga xam ne mel na ni bi nga xam ne moom la ñuy dund ñu ngi ci waxtu woo xam ne àdduna day gën a beesaat xarale yi gën a ñaw euh, mbir mi gën tar maanaam liggéey bi laaj en tout cas ñu gën ko maanaam organiser euh, ndax dafa gën a gaaw ñu war na nag gën a moytu ndax liggéey li ko jox solo mooy day fexe ba euh, yéwénal dundinu doomu aadama donc lépp li nga xam ne bu ñu ko jëlee ay matukaay dina gën a sellal liggéey bi gën a aar ci liggéey gën a indi jàmm ak sutura waxuma sax ñuy liggéey rek mais fi ñuy liggéeyee ak ñi nga xam ne ñoo dëkk bërëbu ci wetu bërëbu liggéeykaay loolu loo xam ne lu ñu war a bàyyi xel la loolu nag nekk na loo xam ne mënatul xaar ba tax na ñu ngi sant suñu borom bi gannaaw caisse de sécurité sociale bi mu wootee borom xëy yi maanaam patron yi ñuy liggéey mooy euh, travailleurs yi ak seen i kuréel mais aussi experts yi ñiy fajaate ak ñëpp dajale nañ seen xalaat lënkaloo ñu jéem a xool lan lañ mën a teg ba jéem a ràññee daal li war ci bërëbu liggéeyukaay ñu boole ci nag euh, lenn loo xam ne du lu bees gaa ndax bii mooy ñetteel ñetteelu yoon mu am moo ñu jéem a ràññee ñi nga xam ne ci seen i bërëbu liggéeyukaay sàmm nañu boo baax a baax lañu naan santé ak sécurité au travail jox nañ ci nag ay raaya yenn entreprise yi liñ ciy souligner mooy lu rafet te neex mooy wute nañ ñoom ñëpp ñenn ñi ñu ngi ci mbiru faj bi ñee ñi ñu ngi ci mbiru wut maanaam li nekk ci biir xarkam suuf bi ñeen ñaa ngi ci yeneen domaine donc nag bu fekkee ne entreprise yooyu yëpp am nga ci ñoo xam ne li ñuy doxal en matière de sécurité santé au travail nekk na lu baax nekk na tegtal boo xam ne mën nañ yaakaar ni ñuy jëmale kanam